nañ dugg ci cas bi nga xam ne nii nag Sénégal yëpp moom lañu yeewoo mu nekk li nga xam ne nii euh, réseau social boo dugg fekk nga ko fa image ki nga xam ne nii moom mooy Dieynaba ak ki nga xam ne nii moom mooy jëkkër ji alors moo xam Facebook moo xam X moo xam Instagram YouTube ñëpp moom lay waxtaanee fu mu toll nii parce que dafa naqar yi bu baax a baax sénégalais yi waaye rawatina ñi nga xam ne nii ay jigéen lañ jigéen sunu yaay. jigéen suñu rek jigéen ki ñuy protéger sax ñun wala bu nekk si ay difficulté nga xam ne jigéen moo ñu si génnee jigéen boobu lañ tey jël li jël maanaam daal di koy mun naa ko tuddee sax toroxal euh, torturer ko euh, ba sax ay deret daal di génn nga gis image yi ngeen gis image yooyu noonu mu nekk image yoo xam ne yu ñaaw la sénégalais yi wala célébrité yi ñëpp sax di ko ñaawlu bu baax a baax alors. moom mu ñu doon nat moom lañ moom tamit lañ nëbb li nga xam ni mooy jant yi maanaam moom lañ tëj kaso ci histoire kii nga xam ne ni mooy feeram ñoom ñaar euh, ñi bokk moom sax mu demoon sax ba maatam fekk ji woon fa ki nga xam ne nii moom moo nekk rakkam di ba ak ki nga xam ne mooy jëkkër ji moo ñu expliqué affaire maanaam nu mu demee alors bi si c'est bon nañ dem déglu ki nga xam ne nii moom moo nekk frère bu ba daal di ñëwaat si plateau bi ñu gën ko faram fàccee. ci faay ko ci yu baax donc. amul lenn amul kenn wala benn mbindeef fii nii wala waa ji bu ñu buggee ñu dugal ko ku mën a wax leneen lu ko ku jigéen ki def wala ko accessoire te ñun ñëpp ay xale yu góor lañ man jigéen bu ma tooñee tooñ boo xam ne mënatuma ko supporter xam naa nu may def ba ba euh, ba génn ci wax moo gën dóor bi mu ko dóoree man fekk naa ko maatam man personnellement noq ko man yow yow magu xale bu jigéen bi. man xale bu jigéen bi sa sa goro bi bi mu dóoree sa rakk fekk nga ko maatam. ñuus ko ñu ñuus ko waaw. très en fait seen coow lii nii. ah vidéo bi mu wax ne sama rakk daf ko am si moom wala dara du vidéo bu bees. Hmm. vidéo bu am depuis le cinq mars la. mais daf ko yoroon toujours di menacer xale bi. mois de juin. tànte na ko cybercriminalité ñëw na kër ci suñu kër jël ci xale bi mais boobu balaa muy yegg cybercriminalité réglé nañ ko mu jeex en fait daf ko yoroon daf ko yoroon comme arm saa yu ko neex yëngal xale bi saa yu ko neex bàyyi mais du vidéo bu bees bu ñu def démb wala barki démb vidéo bu yàgg la bu muy bu mu yor nii rek comprendre ñu de ci suuf commentaire yi ñu ne nga expliquer vidéo bi euh, ku góor ki moo ko amoon jox ko ku jigéen ki wala ku jigéen ki. moom moo ko jëloon ci bi ma ko dóoree ba pare. waa bi ma ko dóoree ba pare. Mm-hmm. dafa amoon ay médiation parce que moom dafa woowoon gendarmerie ak police ak lépp lu yaakaar si autorité maatam pour ñu ñëw. donc mu dóoree xale bi man man bi ma dóoree waa ba pare. ah ok. en fait. waa ji dafa dóor xale bi. Mm-hmm. yow nga dem dóor waa boole ko leen ko mu euh, expliquer clairement ñu mën a xam lu ñuy wax. waaw dafa dóor xale expliquer s'il mm-hmm. dafa dóor xale bi. Mm-hmm. boole ko moom ak ñett AKS mooy les agents de sécurité ñun ñëpp ñu mën a dégg li muy wax mu leer waay. daf ko dóor. daf ko dóor boole ko moom ak les agents de sécurité yi nekk ci ci district sanitaire yi ñett ñu scorté xale bi mu ne xale bi malade mental la nañ ko yóbbu Dakar donc man ma ma ñibbi ci Dakar ma ñëw man ma ñibbi ci Dakar ànd man sama yaay sama rakk bu góor ak sama rakk bu jigéen ñu dem maatam bi ñu nee Matam ba defal ko bagage ba pare mu woo commandant mu woote police woo gendarmerie gars yi ñëw bi ñu ñëwee les autorités noonu. alors mu ngi noonu euh, dégg ngeen cas bi maanaam nu mu demee mu nekk frère bi nga xam ne ni moom moo nekk frère ba mu expliqué maanaam maanaam affaire fu mu tàmbalee mois de février lañ tàmbalee si duñ tàmbalee moo nekk affaire de euh, firante comme jigéen chaque chaque fois euh, ni ko waxee peut-être si affaire de doxaan. si ay dóor si la commencé donc dóor na moo tàmbali ba fu mu toll nii ba jëkkër ji ba jabar ji nga xam ne ni moom moo nekk jay na ba daal di koy filmer si filmer boobu si lañ ko jàppee sax parce que da doon menacé ki nga xam ne moo jëkkër ji ne ko bis ba ma dóoratee dinaa publier li nga xam ne mooy vidéo yi donc si menace boobu si ko daal di tegee loxo ba sax gis nañu information yi wax naan te nañ ko lu tolloog 3 mois ak benn amende donc mu doon li nga xam ne ni ous euh, lu naqare lu baax a baax Sénégal yi ana nan nga déggee li nga xam ne ni moo ni mel waaw moomu ñu ngi massawwaat waat ah. Mhm. man de ma moomu maa ngi massaw kuy jigéen. waaw mhm. ah, kuy jigéen rek maa ngi lay massaw ndax doon jigéen rek dafa metti avant tout massaw gi ñuy njëkk a massaw su ma ko tegee sax ci loxo pend bay ñu ñuy seetaan it massawul na ma. Mhm. massawu ñëpp benn moomu ma gis ci. man sama dégg-dégg ñu baal ma. bu irresponsable kuy wax. ku góor gi waaw. pourquoi ngay ku euh, responsable. moom moo damaa noqantewu moom moo tey ak démb ngeen xam li xew. Mm-hmm. moom boobu ba léegi mu ngi xam li rakkam di dund mu ne pat. waaw. moomoo des fois. depuis mois de février. <laughs> des fois man moomoo dama dul comprendre man nag li ma wax li ma yëg. Mm-hmm. yow da nga yow yow am nga jotu jóge fii ba Tamba ne da ngaa noqi nit kañ. yow mi mën ba noqe mënal ba jël sa rakk indi dafa am ay wax yoo xamante nii moomu man man duma ma ko d'accord du ma ko d'accord xaw ma nag li xew dëgg-dëgg mais am na ay wax yoo xam moomu bu ban tey même bu fekkoo amoo pouvoir yi jël sa rakk indi moomu bu ban tey lu la tee dénoncé. mais comme ni ko Sénégal di waxee defar. wala suturaal si nga xam ni mooy sa rakk. amul sutura say Sénégal wallaahi amul sutura. d'accord ku ku koo xamante ne mun na nga ko dóor mu dee. lu ne mun na ci xew. yow yow yow yow mu métti ba mu métti ba nga jóge fii dem ba Tamba ne noq nga kooku. Matam ma dem ba Matam ne noq nga kooku yow te dénoncé woo. demoo wax ni nii ak nii lay demee wala waxoo sa ndey ak sa baay nii ak nii lay demee wala dafa am lu nekk ci suuf lan la man kii wax gëwuma yeneen yi nag ma xool waaye lii mu wax man wax dëgg fa yàlla moom moo barki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul sama sœur ñu koy traité benn traité ma fekkee ko jour boobu da ngeen may rey waaye du des ci kër ga man wala kon man ngeen di dégg ne tëj neen ma wallaahi azim waaye nga ne sa sœur nga ju man li ma ci naqari nga jógee dëkk dëkk ba ni jàpp nga jëkkëram noq ba ñib siwaat bañ ma jóge ñu tëj ko nii dóor ko ba def ko nii yow nga ne magam nga après nga amaat sax jot di expliquer da ngay fen waxoo dëgg man maa ni du dëgg gëw ko <laughs> man waxuma ni amut waaye man gëw ko man dal loolu kiiwul non logique sama xel non non sama waay sama deret mu mu mun yow jigéen nag ni mu fragile jigéen mën nga ko dóor ci wen mu xam jaare fa dee jigéen mën nga mbéj ah. ma xam ni ma fekk sama rakk si benn situation mu mu war a wiññeekoo noonu non non dëgg du dëgg gëmuma ko wax dëgg fa yàlla sama laay wax barke Cheikhul Khadim gëmuma sama rakk laa lay wax de waxuma la sama rakk de barki Seydina Ousmane Mbacke Noreyni 2023. Mhm. téye nañ ma polisi Géejawaay ñaari fan man ci ma fekk romb. Mhm. gis ko mbaj xale bu jigéen ba riir sama moto. ma gaare moto bi ñu mbéj ko bam riir ñu songoo ndekete rakkam la xaw ma waaye le le fait que bi man laa lay wax xam nga xaw ma ko gis ko le fait que geste bi police ñëw mu ngi ñu dalee woon euh, maanaam bo maanaam tali bi biros doore bi nekk nekk léegi mhm. ci jàkkaarloog église bi d'accord tar mbañ dama tiit ba mu mu waxuma dama gaare rek fekk ko fa ñu xeex xeex bu metti ba armu jug ci ma jël sama tournage mu jël kaba coow li métti ba deret am ci soriwul police ñu yóbbu ñu man nañ téye deux jours bi waa ji ñëwee dañu àndaan dama ko ni barki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mi ma yaakaar ku jigéen kaa ngi toog seen papa ngi toog seen yaay ma ne leen ni mu defoon ku jigéen ki ba ma réagir billahi commissaire maanaam bu ko ko defaatee nii man noonu laay réagiraatee nga ma ne ko wallahi azim biir biir na Serigne Touba samay mbokk taale bi nga may dégg ndax ñoo ma fa jël si après man leen bu ko ko defaatee la ma fekkee moom bu ko defaat ku góor ki man noonu laay réagir reera commissaire bi ne ko defal lan la sa ni mën na ko defal li nga ko defal xale bu jigéen boo ko ma ne ko xool leen ki ñoo ko la mu ne leen dama mbéj man ci la pour man man maa ngi wax ma ne ko ah doxaat nii rek dafa jar yi wala doon sa jabar ndekete ay mag ak rakk leen man xaw ma sax ni man mu yooyu laa ko foogoon quoi. Mhm. mujj gi papa ji dafa taxaw di jooy. maanaam maanaam asma man ku ma xamul. man laa wax ba tey waxuma leneen. ba tey waxuma keneen man ku ma xamul. barki Serigne Touba ñu téye ma ñaari fan. police géej waay te xamuma ko dama fekkee c'est vrai parce que dafa dafa laal sama xol. Mhm. asma nag sama rakk yaa ngi imaginer man. lu ma xamut rek xaw ma lu xew famille jàmbur ma dugg sa ba loolu dil dal ma ci asmaa nag sama rakk moomu ma fekk ñu toroxal ko ma fekk ñu dóor ko ma fekk ñu teg ko ci leneen ma fekk ñu bundu ko moomu ma ne nokk naa waa ji da ngay fen nokkoo kenn nokkoo kenn <laughs> peut-être dañoo ndax boo ko nokkoon mm. muy dëgg jour boobu boo ñibbi sa rakk dalay topp wala jour boobu la loolu di dañ wala jour boobu ngay tas sëy bi ni da ngay am ful la man daal wax dëgg fa yàlla moom bu ma la fenul fenul fenul fenul fenul fenul lii gëmuma ko moom mi wax nii waxuma nag li xew après dinañ ci wax waaye kii wax gëmuma ko d' accord euh, si kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ne dem na ba këram deneen dem na ba maatam fekk euh, jëkkër ji daal di koy duma duma yu metti euh, d' accord d'une part mun naa d' accord ak yow mais d' autre part comme ça jëri sa jëri jabul jàmmoon bu fàttali ak lu mu doon sàkk tamit jabar la jabar la voilà te mun na te amoo droit maanaam tas sëy boobu mais xam nga jabar lan la farata ni yow xam nga lu tax bu ma ci sariya sax damay jël man maa fekk mhm. bokk ak ñu koy toroxal mu leer ma ni tey tey kii bu fanaanee fii sax mën naa dee boo ñibbee yaa ko rey ça c'est sûr bu ñibbee yaa ko rey loolu man ngeen di jël xam nga lan moo leen di noppal mhm. coow li am ba ngeen jël mu yóbbu police ba ngeen jël yóbbu police ma dëkki fa ngeen téye nga fanaanook moom mais jour boobu ci kër gi moom yaaram walla bañu ma ko ba ñu tëj ma sama giiru dund sama rakk day ñibbi ndax du ma du ma fekk sama rakk ci état bii di ko bàyyi ci kër loolu ku ko def doo góor de. ça c'est sûr non non euh, ba léegi dañuy daal di continuer euh, grand frère bi. am na yenn célébrité yu bëri yi nga xam ne tamit ñoom tamit yëkk nañ seen kàddu wax ku si mel ni ki nga xam ne mooy nekk Nabou Dash moom wax na si